Ablaye ku am chance la parce que ngërëmu yaayam moo ko may kër ga mu uutoon yàlla dogalu ko adduna bi yëpp taxaw pour uutal ko kër joxal ko yaayam kooku amul ngërëm mënoo ko am parce que li yaayam ne bu ma xamee lu naqarit bi mu nelawee la bu ma xamee lu métti ci la kon ab lay ci xolu yaayam la doon daw ba ni mu faatoo kon yéene ji mu yéene il faut yàlla yi tàggat ñu ko ko mottali il faut yàlla tagg ñu ko mot li bi mbir mi amee euh, am ay rendez-vous yu ma fi déggoon ay ministre de la culture dal na way juróom bu jigéen ak yu mel non est-ce que Iran bi mu songee combat bi ñu tuddé les autorités étatiques est-ce que fek se nañ ci dugal seen loxo gisuma len dégg na sax ñu né Macky jox na mo 200 millions <laughs> ma ne ah Macky est-ce que ñemee na fi réewam mi tollu nit ñi xiif nit ñi sonn muy jox Iran kese deux cent millions ci daara sëñ Babacar jaaduwut du logique c'est-à-dire dama doon joxe e- man su may wax lu ñaaw sama bopp laay joxe exemple su may wax lu bon ni sama bopp laay jël dama wax ne léeg-léeg Iran dal ci kaw Macky gaaruwaale ko wax fii dal ci régime bi Macky recevoir ko yëkkati deux cent millions may ko Iran génn wax lu uuteeg la mu waxoon maanaam damaa xasoon tey ma tàgg ko may leen daanuwuma damaa juutu rek xam nga daanu dafa tuuti parce que mag du weddi boppam maam Cheikh Omarul Fuuti Taal dafa wax ni Sénégal laa gis nit toog ci place tagg fa nit jógagul ca palaas ba xas ka mu taggoon loolu mooy sunu aada moo tax man yëguma benn ci état bi ko jël dërëm joxe ko ci yëgaguma ko xëy na ginnaaw dinañ def deuxième téléthon 22 août bi xay na xanaa danañ ñëw <laughs> joxe ci mais ñoom ñu def defuñu incha allah dana sotti. mais mais oustaz li muy porté combat yu mel nii euh, bari na oustaz ci même personne yi ñoo koy dimbali wala oustaz tey bu demee ci ñu suba dem ñële wala day woote après ba rek jullit di ku nekk jël. waaw xam nga nag man dama am doxin. boo xam ne duma koy wax suñu bokkoon di liggéey dara.

non man man ma wax la leen bu ma soxla woon un milliard naa ko génne maa la wax lii. lan mooy bi. non ànd yàlla rek un milliard bu ma ko soxla woon ci Sénégal gii dinaa ko génne jalal la ko fii benn sikk nekku ci kiy joxe wërsëg muy sunu borom mooy razaaku ki muy jox wërsëg muy nit te su ko neexee tàggat boromi milliard mu sëq dix milliards jox la ko ti du ko tey parce que ki ko ko jox moo ko jëlaat joxe ko keneen. allahu akbar Oustaz Ira ba relation la am ak Adjaratou Marème Faye. suma xarit la Marème sama xarit la euh, bu baax euh, damay wax ne sunu xaritoo nag des na lu tax su demee ba yàlla dogoon ñu jeexal ci nguur gi. booba lay xam kuy Iran mais ci moment yi du xam Iran man noonu lay doxe Marim suma xarit la ku baax la Sénégal def fi lu baax moo yombul xam nga Sénégal euh, danay wax ne Serigne Mountakha rek laa gis mu man fee dëkk sax Iran sëñ Mountakha xoolal ci affaire corona bi gars yi dinañ indi kaanaan Touba mu ne patt rek parce que bi muy toog daf ne man liggéeyal sëñ Touba moo ma tax a jóg wax jeex na wax keroog bi chauffeur yi di déconné lu mu wax xool leen ci man xool leen ci man ça veut dégg naa lu ne ñu ngi may def lu ne déggu leen ma wax mais Marème ban particularité la am bu tax Iran tee ko par Iran xam nañ ko ci franchise boo xam ne du du tee nit ci ay tappaleek yu mel. waaw moo tax ma indil la sëñ Mountakha man dama bëgg nit ku franc Marème dama gis muy taxawu ay daara maa ko gis kii Cees la dëkk kee sëgg nee dafa am benn daara bu fa nekkoon sëriñu daara ba ñu abal ko kër gi borom kër gi ñëw di nangu kër gi xaw ma lu ko wax Marème fay Sall kër ga 6 lañ ko doon jaayee Marème yónni ci suuf fay kër ga ne waa ji bu kenn xam ne mana senegal man ni ma gis muy dundee daara yu bëri tuwaawoon ak fudul tuwaawoon gàmmu tuwaawoon day ñëw xam nga lu muy def man 30 tonnes ceeb la naan jox ko Iran mu seddale ko ñuy gàmmulu dal yi maay sama bopp boo buggee boo amee WhatsApp kii dina la yónnee lépp du ma nangu pepp ceeb dugg ci magasin parce que ceeb bii ñëw pour pour pour pour gan yàlla yi la ak gan yonent bi mais du pour yow lu tax nga di ko tëj ci digg daara jël lañ koy rangale ba mu fees seen TV jëloon na ko trent tonnes maa génnal sama bopp di ko sedd séddale benn saako ceeb awma ko ca parce que duma ko def Mariam ku baax la.